ambassadeur nangu sekk dina am ñuy yuuxu duñu comprendre mais foog ñu xam mois bi ci la mois bi la moo waral lépp mois bi mooy lépp mais na mm-hmm. nañu xaar ba mois janvier bi xëy na dina weeru lëndam la ci la lu bon yi di feeñee mois de janvier yi donc li ma leen di wax ambassade képp koo xam ne nekkoon na ci sa panel bi depuis le début soo bëggee gagner pouvoir bi foog nga jëliwaat ko parce que ku mm-hmm. nekk dafa am lu ko yàlla may ku nekk dafa am bul yaakaar ne guerre bi yow kese la ñu bari nag ñu xamee foofu mais porte buñ ko bëggee buñ leen bëggee éliminer ci porte bi lañuy jaar garde bu fa nekk dañ koy fàdd mu daanu pour ñu dugg ci biir mm-hmm. Mm-hmm. fokk nga jëliwaat say garde su fekkee bëgg nga am pouvoir fokk nga jëliwaat say garde et puis fii leen sànq ba léegi maa ngi leen di bind naan leen am na ku nekk ci kaw kii kan la donc Sira am na looy bëgg a wax loo gis li nga gis mi ngi ci sa panel mm-hmm. li nga gis mi ngi ci sa panel toog li nga toog di expliqué ñu bëgg nga leeral mi ngi ci panel bi mm-hmm. il faut ngeen des attention man tey exemple su ma neexee am na lu ma bëgg régler su ma neexee ma parce que sama sama du ngeen ma xam ma dikkee leen feneen bokk ci yéen du mm-hmm. ngeen riir ma riir ànd ak yéen bëgg dugg ci seen biir pour xam seeni mbir maa ngi leen di bind mais bu ngeen comprendre dama ragal nag ragaluma sax waaw dañu non mais géré naa ko géré naa mooy loolu te dama dog ci laa ilaha illallah duma ko def mais munuma muñ parce que deret bi la man nag mm-hmm. xam na parce que man ak ñoom ñoo nekkoon mm-hmm. kon xam naa côté bu ñu kiyee mais li ma leen di wax bu na leen nday nogay mi ci boppam jigéen moo mm-hmm. ko génnee jigéen bu am pouvoir moo ko génnee te jigéen boobu bu ngeen xoolee misaal na leen yéen ci keneen la ko jaarale ñe man nag waxoon naa waa kër gee dañuy nelaw parce que dañ leen gëmloo foofu lañ leen naxee ba génnee nday mbill bi te du moom rek am nag ñeneen ñu war a génnaat donc yéen li ngeen war a xeex bu leen lijjanti ku génn ku génn yéen lijjanti leen la vérité fan la dëgg bi nekk parce que da ngeen di toog di wax ki génn fu mu nekk ki nekk ba ki génn dagg bi yem jël vol dem yoonam lu leer te day dem donc faites leen très attention dee leen xool ci seeni biir li ma leen di yaay fal nag yow soxna si xawma dooma ambassadeur xëy na xamante wuñu mais maa ngi jéggalu ci li ma ñëw di wax ak yow ci entre respect maa ngi jéggalu bu fekkee laal naa wax naa la ci dara lu la déranger maa ngi jéggalu bu baax a baax. non non faamaane. non maa ngi jéggalu rek ci côté boobu mm-hmm. yéen ñi nga xamante nag miinante nañu xamante nañ bu baax donc mm-hmm. maa ngi leen wax lu ngeen mënti gis génne leen seen sarax bu dee lu safaan la saraxeel lu xonq bu dee luy mm-hmm. bëgg mu leer la joxeel lu weex ma point mais bul toog ci panel bi ne ma lii la ak laa parce que gént ku la ci bëgg a mën na la fàdd ci kër boo ko waxee ba pare ndax day xam lan mooy sa moo tax bi ngay bind ma ni sira am na kuy bind ci suuf ok yàlla yàlla defal jàmm ale ñu fanaan jàmm merci beaucoup kontaan nan mais nam nan la nag nam waxtaani fajar <laughs> <laughs> daba di waaw daba di pël bi ma ah, waaw moom laa wax nii waaw wax ci kon wax ci leen ma <laughs> gis dama gis benn vidéo buy circulé sànq ba léegi ñu ma ñi def ñi def rendre hommage Aziz Dabala. Mhm. te man dégguma benn yoon fu Coumba Gawlo taxawee ni rendre naa hommage Aziz Dabala wax dëgg yàlla. xaaral ma expliqué la ni yëf yi boo paree ngi boobu du si ba. ah wax dëgg yàlla gis na am na ku mu dégg mu naan xaw ma la Kumba Gawlo lay rendre hommage xaw ma la Aziz Dabala xaw ma di jeex saa ñu dagg ko yóbbu ko feneen. ah bu Sira sànni naa la ko ci sa TikTok. ah waaw man xool naa ko pour man dama ne si si soirée bi. non ngeen xam rek pour ngeen xam rek. juste dan ma koo sànni waaye laay damaa choqué. pour ngeen xam xam nga damaa yaakaar fekk de rendre hommage da nga a taxaw jël sa micro damay rendre hommage diw. ñoom dañ mbi mais dégg nii micro rek rendre hommage Aziz Dabala jeg saa yi ko yóbbu ay vidéo wane ay vidéo yu mu àndal mooy vidéo yi nii xaar leen moom leen photo yi yoroon keneen wax waaye moom waxul waaw yii yoroon naa ko photo yi nii yoroon naa ko ay ko directement ni ma la ko yónnee moo ah. gën ko noonu ah ma tegee oto yi yoroon naa ko yii di yëpp yor yi ci kanam kan la ah Aziza nekk ci digg bi ñi hmm. ci des nag man xaw ma leen non dañ ko def ay spectacle dañu def benn pano génne vidéo bi mu doon gërëmee ndaw si moom Aziz après hmm. ñu wane beneen xaritam bi ñu gërëm kooku gërëm Aziz vidéo bi noonu la deme ah moom ñu nekk nii loolu ma jaaxal man damaa gis rek ko xam ne Aziz a ngi taggaate ndaw si ci tën yooyu mu sol موي تالي داول سنو يارب ولا لا amna na benn jigéen bu fi yéeg demba ñu waxee nonu ba par affaire hommage beeg yoy non mom yéeg na nee du demba de tey ci fajar gi la tey ci fajar gi la rendre na ko hommage. soo so soo yalla yàlla ci suba la. lu jitu won lolu passeport be jitu won lolu te defuko passeport bi mo jitu passeport bi la waroon a njëkk a lijjanti. mu ngi noonu. liggéey liggéey bu am solo ci carrière am. adduna dogal nag li mu dogal. ku ci mel ku Samba Mballo bu Kelongal ak Aziz Dabala ñu may leen benn vidéo ñu rendre leen ci hommage ak Kumba Gawlo la diva bismillah Шоке. mboolem artiste yi ci Sénégal yëpp rawatina Kumba Gawlo bokkoon nañu fësal seen naqar ak seen tiis ginnaaw bi Aziz Dabala génne àdduna kii di diva bi am baatu wurus bi jàppe woon ku bokk ci njabootam te waayu Aziz Dabala ci bërëb doon na tax foofu leer naññ te noonee la xarañte fam leeroon ñëpp ci anam bu amul jeex na wasalaamu <laughs> wasalaamu montas moom wax moom moom gawlo <laughs> moom ci wax moom sax wax loolu mooy rendre hommage nga jël vi mais arrêté leen tamit Kumba Gawlo arrêté rendre hommage dafa jël sa temps bàyyi di sànni nit ñi xeer da nga nekk di sànni nit ñi xeer. voilà voilà kii bopp eh, eh, mais c' normal de eh, Mina. Hmm. c' normal c' normal parce que nit am na loo xam ne mënoo ko boo ko jéemee sa doo ko mën lii c' est normal. lu mel nii rek comme télé bi mu yóbbu comme télé bi mu yóbbu kër télé bi baaxul same thing la rek amul différence. lu mel ne ñaawal nit ñi. Dövülün, dövülün, dövülün, dövülün, dövülün. Lima randur avans. Xoolal. Lima la randur avans. Lima randur avans lii. li mooy rendre hommage lii li may rendre hommage li kii kan la. di ngeen daw bi. ambassadeur. Hmm, ambassadeur ambassadeur. waaw. Eh, papa papa naa furi ñibisiwul de. dégguma kii kan la yow ambassadeur kii kan la dégguma kii ko rendre hommage ni kan la pekaay eh, dafa mel nu ah, waaw waaw pekaay mbay ndeysaan moom mooy tëmu dëkk tingéej pekaay mbay xawma pekaay mbay pikin la dëkk kooku pekaay mbay la ah pekaay ambassadeur sa sa micro sa sa vidéo moo nekk gor la de faris la Bekay mi daa ris la de ndeysaan ndeysaan yàlla ah kii kat sañ na koo def ndax boole bokk ci kompolo bi moo tax day def lii i waay Aziz ndeysaan This son. te yàlla àddina ñi di def lu bon li kan la Hello. Pamoja mtila Je demande toute la salle. Je demande toute la salle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. waaw. ah. ambassadeur. waaw salaamaaleykum baal leen ma de maa ngi dugg rek di si mina soo ma xëtee garaaw amul problème maa ngi. nam naa la de. maa raw maa raw ambassadeur. yaa leen di may bës dindi lii. non non non li kii ah, la li Tarba Mbaye la la. non pekaay la quoi. pekaay pekaay. non bu njëkk bi pekaay de pagaay. bu njëkk bi bu njëkk bi dama koy wane rek ne xool leen rek wax dëgg yàlla. bu ko wane différence hommage bi. différence hommage yi lay wane. xam nga kii nii xam nga kii nii jël na micro bi di way si Aziz Dabala. ndeysaan. di way quoi di way. oh mon dieu. Coumba Gawlo moom moom moom est-ce que elle n'est pas elle n'est pas devenue malade. ay waay déglu leen boo wàcc waa demal waa demal ci bëñ ñu tegal leen vidéo yi naan dañ ko avancé nangam waaw voilà loo loolu lañu jarul wax parce que ñu bëri kenn yëgu ko woon ne sax def na loolu wala def nañ seen ay montage ba toog en plus euh, soo soo leen mënee ah tur yi ngir yàlla ngeen koy bañ a wax ba mu yeeg ngeen koy wutal initial wala ngeen koy wutal beneen tur dégg ngeen maa leen ko ñaan maa ngi wàccaat ba suba waaw ba suba incha allah wallah yàlla rek kay buur di borom lii merci team kontaan naa gaay nañu doon ah, moo tax ma ne naa ko dugal ndax on sait jamais avenir moom taxat taxatee avenir lañu tasaare avenir yàqate avenir lañu séddoo ku amoon goût ku amoon mm-hmm. mm, talent koo xam ne mm-hmm. non lii moom lii daal ma daal lii man daal lii daal man wax dëgg yàlla am nañ leen ko waxtaane nag ñii ñi ñii kaa leen koy waxtaane ndànk-ndànk man man lii daf ma mujjee dépassé daal parce que ñii ñii daal ñii daal amuñu xol daal ñii daal amuñu kër léeg nag yàlla nattu la nga ànd ak ñoo xam ne amuñu xol amuñu kër duñu xalaat seen bopp rek sax dañ mel dañuy ñaawal li ñaawlaata

ngay rendre ko hommage yow jëloo sa micro yow ndey mbili gi nga wax loolu hommage la. moom parce que yéen a su xam ñoo bëgg mu wax ci pour pour nit ñi bàyyi ko su xam ñoo nekk di wax pour xam lu tax nit ñi ñu ne rendre na ko hommage. mais mais Mame Walo Mame Walo na nagu nagu lee da koo porter plainte. loolu neex na eh, eh. Nabou Leye yàlla ma topp ci. ci kanam dégg ngeen. déedéet. ci kanam xalaatoo. mooy loolu mooy lan ñun ñëpp. na porte benn comme baayam moo moom moom justice kay. ambassadeur. waaw nampal doonu jox tous dañuy jox ween total. doonu jox tous ah. ween nga ñuy jox. nampal yaa ngi foofu yaa maam waa daal maam waa daal waa léegi nag maam waa la lan la wax ba porte ko plainte. ah, ah xam nga lan la. vidéo bi mooy vidéo bu mu vidéo. xam nga moom wax na ko nee na bi rek la ko mën Nabou mën a mere mooy bi muy wax. Euh, Aziz deena deena yaa lor ñëppay dee. et après. luy problème léegi man man. moom na porté tante tante Aziz mu porté ma man mi chaque jour ma nekk ci moom. man damaa seexlu wax turam sa jaar ci turam sa dama ko seexlu. yàq de yàq gémmiñ la de. nee na mu ngi ku oh bon nit ku bon boo ko da ngay dafa am clip buy des si sa kii. man de. ma fay tegal ñu lool ñu dégg ko. Oh, kilifa diine yeeg kilifa aada yi. di wax sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér di ñaanal sama turandoo soxna wàllum sëñ Fallou yàlla na yàlla yokk ay leeram amiin amiin njabootam fi bàyyi yàlla teg ci loxo mm. di nuyu sama yaay bu baax di ko jox wàcc waayam di ko wax yàlla na ko yàlla sàmm mm. yàlla na ko yàlla bàyyi ci sunu kanam ci barke Seydina Muhammad di nuyu sama yaa xaar baax a baax a baax a baax mm-hmm. di nuyu sama yaa Kumba sama yaay Yaasin bàyyiwuma kenn nag sama yaay yi yaa soxna joom ngoone joom bàyyiwuma kenn Mm-hmm. di wax yàlla ñëpp am jàmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla ñëpp am jàmm. maa waa lu ñu def la dugg ci waxtaan bi. li ko waral mooy point de presse bi nga xamante ne keroog waa Kër Aziz woote nañu wax ko. donc ñu gis foofu kàddu yi nga xamante ni je pense que ni sénégalais yi ba tey ñu ngi ciy yàbbi. Euh, mun naa ni yaayam wala bàjjanam ci Aziz Dabala donc moom nee na amul lenn lu ragal euh, ci li muy wax. Nabou Leye moo rey Aziz. Uh-huh. bu ko takk ne ci li nga xamante ni moom moo ray Aziz uh-huh. maam wax wax jooju noo ko waaw wax de Abdou ne ni nga ko dégg ni ko déggee da xaw naa yéeme trop mm-hmm. parce que affaire bi bi mu jugee mm-hmm. Sénégal yëpp la metti waaw kaw Aziz te saa yu ñu as dabala mm. daf ñuy naqari mm. donte sax yàlla def bu demee ba leeral mbir mi saa yu nu xëyee naqar bu dul denc ci ñun la naqar bu dul denc ci Sénégal la naqar bu dul denc ci artiste la naqar bu dul denc ci showbiz la parce que Aziz Dabala du nit ku ñuy fàtte kon ni mu demee mbette métti goo xamante ne nii yéeme na ñu ngi ñaan nag fu ñu toll yàlla ko yàlla leeral ci daraja Seydina Muhammad di wax uh, bàjjanu kii yaayam rakku yaayam la xawma mm-hmm. déglu naa li mu wax mm-hmm. mais nag li mu wax doon tax mm-hmm. nit ñi doon nañ ko laam-laame mais lim ne ne diw parce que diw moo rey nit dafa ëpp dafa rëy lu ci dara dana diw moo rey nit diw moo rey man man défendre ma Nabou Leye man saa yu ma xëyee barke Seydina Muhammad gisuma fa la ma fa ma taxawoon falaa taxawaat justice pour Aziz Dabala mm-hmm. waxuma lu neex kenn lu ma neex ak lu ma sentir ak lu ma yëg laay xool laay wax mm. mais diw moo rey nit dafa nekk wax bu ëpp wax bu rëy ak lu mu mënti demee nag. am na ci preuve amul lenn lu mu ciy ragal. ak lu mu mënti demee diw moo rey nit dafa ëpp. Mm-hmm. du ay wax yoo xamante ne nii wax ju neex a dégg la. Mm. parce que nit ken du moom comme que moom yoon. xam nga dama dégg si léegi benn xale bu jigéen ku tudd xaw ma nday xaw ma bànn nan mu wax ci wax ju leer ju joo xamante wax ju dëggu la wax parce que nee na ñun yoon moo nu jaxaseet na bu lay parce que yoon moo téye woon na bu lay xel yi jaxasoo xel yi kon muy man de sama morom mm. man Abdou mm. bi ñu dencee na bu mm-hmm. waxu na bu lay bëggatuma ko ma wax loolu sénégalais yëpp man sama man man man damay part personnel man li nga xamante ne man mooy réalité bi ak li nekk sama xol ma loolu laa wane. Mhm. parce que fowuma li ma naqari laa wane. Mhm. te li ma naqari. Mhm. mën naa ne moo naqari ñëpp. waaw wala déet. kon moom diw moo rey nit. loolu dafa ëpp. kon àndoo ci lu mu ne diw moo rey. lim ne diw damu lay moo ko rey. dafa rëy waru ko wax. maire bi waru wax loolu. parce que. comme kon namu Leye yoon moo ko téye woon mhm. yoon moo ko bàyyiwaat ci kanamu ñëpp mhm. li tax ñu téye woon ko waxuñu ko yaay Aziz waxuñu ma ko waxuñu ko kenn kenn xamul li tax ñu ba ñu jàppoon ko kenn xamul li tax ñu téye woon ko mhm. mais doomu aadama yi li tax ñu téye woon ko loolu la ñu meree na Leye ok man mii tamit li tax ñu téye ko te xamuma ko loolu laa ko meree ba fii may wax ak yow tant que attewuñu tant que attewuñu ñi nga xamante dañ ne ñoo ray as dabala hmm. tant que wuñu as dabala lan mo wara tax ak lan ban dérangement la am am ci nit ñi ba tax ñu ray ko hmm. man nagu lay wax may wax ba fi fa nga fa ma mais lu wax waru ko bakki dem lu man fan ye lu ma lu ma waxoon première émission bi lu ma la hmm Cheikh gadjaga Gadiaga. bu nañ ko ci nañ ko ci yoon. nañ ci ñew ndax ay da wax an na ci ay leeral laajte naa ko. merci ok kon ni ma la ni ma la waxé won Cheikh Cheikh gadjaga pelante nañ ko. hmm lool la lay xamal ne. Hmm. nabu lay am ñu bëri ñu pelante. dëgg la. ci ka bi nabu ka bi ni nii. nab hmm? ya. bis buñ ko lijeenté am na ñu bëri ñu ñoo xamante dañ dinañ wuyu si nabu ci yoon. est ce que lay war na am jot bobu tawen ma walo ah lu mel ni double meurtre lu ma la wax nag di nga ne ma man waalo yow doo nit loo ma wax ci kaa bi lu ma la ci wax di nga xam nga man kër as dabala benn yoon laa fa dem hmm. ayda ba neew gis da ba jour ma fa demee hmm. neew ma man may man waalo hmm. yaay as dabala neew ma ma may man waalo parce que boobu yu bari yu mu teg diw ma ndax jour boobu talo ñu ma talu ma leen ndax boobu jëfe jaxasoo na ba ndax ba yàgguma fa mais nag dossier yi ma lay jox ci taaba ji laa koy teg Nabou Leye am na ñu bëri ñu porte plainte parce que nag. Hmm. comme que nag Aziz Dabala ñoom dañoo nekkoon ñaar kenn nekkuñu woon ñaar. Hmm. yàlla def ñu téye ko ci. Hmm. biñ ko téye jaaxal ñëpp téye biñ ko téye tilim ak daram te daram mënut rafet ci àddina. daram gisuma lan moo koy rafetala ci ci dunuyaa. nattu la bu jógee ci moo yàlla dal ci kawam li tax na fi ne nii nax nit kenn moo tutee xuus hmm. ndey mbir léegi ndawal buur moo téye woon na bu lay moo ko bàyyiwaat léegi li tax bàyyi bi li tax ñu téye ko ñun xamuñu ko woon hmm. li tax ñu bàyyi ko mu ñibbisi waatam xamuñu ko loolu tamit kon doomu jàmbur meer bi hmm. rafetut mu ne nabu lay moo ray baat boobu mu wax rafetut ànduma ak moom euh, euh, Mawal est ce wax ko ci ci émission maanaam nga xam ne dañ ko yàgg téye seen xol est ce que nekkul néew looloo koy soulagé moom moo tax mu génn waxee nu mu waxee. waaw mën na ko suuf mën na mën parce que gis nga loolu wax noonu. Mm-hmm. ku ko wax sa xel. Mm-hmm. ak ku ko wax ñu dégg ko. Mm-hmm. action bi ni mu demee. nabu la yàlla dong moo ko mën a satal du nit. dëgg la. yàlla borom kase. wala yoon gën ne lii moom. wala yoon génn ne kii kat lii moom lii lañ doon soydu ci moom. gis nañ ko moo tax ñu téye ko. Mm-hmm. lii kat la doon saytu ci moom gisuñu ko moo tax ñu bàyyi ko. Mm-hmm. loolu nit ñi dañ ko dégg mais duñ ko mën a gëm parce que ne action bi demee la. Mm-hmm. parce que Nabou Leye. Aziz di dee. Ah. lu ko ci téye kaso defet la. te lu ñaaw loo xamante ne du fay ba abadan daay mën dappi. dégg nga lu bàjjan bi wax nee na jour bi nga xamante ni moo nekk jour sarax si. dan ma sax ba fàtte ñu tur bi xaw ma vendredi la waxoon xaw ma nee na samedi euh, Naboulaye bi muy ñëw dafa ànd ak magam mi ngi naan mënut a ñëw parce que dañ koy yuuxoo ngiraa loolu tamit ba jàngat nga ci am. non loolu moom loolu lu ko defee mu wax tamit loolu tamit. Hmm. déggewu ma ko noonu. nee na jour bi muy ñëw. dañ ko doon yuuxoo. Naboulaye ay nit a ko doon woo téléphone. parce que biñ doon jaale ñun ñu woon ñoom as dabala hmm. man booy seet sax hmm. Naboulaye. lima ma ko ci dégg ci problème dégg bu ndaw mo tax ma fa. moy lan nga ci dégg. ndax. ndax bu li tax ma fa. moy man dama yaakaar ne man sumay démé bay jaale yaay nabu lay. Hmm. nabu lay jaja yàpp sama loxo na mama ki kat suñu yaay la. njaal mi sax ci loxam la. ki kat suñu mag la. wa ñew ci dafa bëgg jaale si. Hmm. su ko defee. Hmm. ma mo wara lay moo war présenter nit ñi parce que mère bi xamul nit ñi. vraiment comme que nag ba ci loolu yëpp amutee. Hmm. lan la fa nit ñi di uti. Hmm. lan la fa nit di uti. kon bu jaarale ay jii ñu bëri moo waroon recevoir ay njaalu Aziz. ay dem dégg ma Nabou Leye moo waroon recevoir nit ñi. ok léegi da ko ko recevoir luñ ko dégg am na ba naan dinañ ko téye bokku na ceeb bokku ci. Hmm. yaa ngi dégg. léegi nit ñi lan lañ fay defati. Aïda mii ku ko xam ci média bi nga ko xamee. ku xam yaayu Aziz Dabala ci réseaux sociaux nga ko xam di. kon comme kon Nabou lay mom perte na bobu connaissance rek. amatul place. Mm. fofu mm-hmm. amatul place tamit mën mm-hmm. na fi ci senegal Nabou Leye amatul fi place. Mm-hmm. amatul place tamit ci aar. image am da nga japp man xam na ne mom ñi pelant ci ñuy pelant man ma njëkk nek premier man lu leer la wax deug na am nañu bari ñu mu pelant. mais li ngay wax ni mun la ci pelant nak ma walu man bobu leg ma ngi wax de mais néew ma mo roy waye yëpp sama xel ñaaw na. Hmm. sama xel. li mun la ci plainte nag maa waalo. man booba léegi maa ngi wax de mais néew ma moo rey. waaye it sama xel ñaaw na. xel hmm. sama xel biñ ko téye. Hmm. sama xel ñaaw. bi sama xel ñaawee laa maslaatut ba fi may wax nii maslaaw ma ba baa nuy àtte la as dabala. du ma ne nag du ma taxaw nag wala may bëgg bës wala may bëgg tur. naan diw moo rey doomu jàmbur du ma ko def. mais sa xel tey na mais. tank que atewuñu as as dabala mais mm. mu tal ñu xam li lañ ko rayé wala ban fexé la ci doon def mm. wala lan la ci bokké sama yott newul ci mom man mam walo gay def fara maariñ ko tiss mako wax waye it tante as dabala bi li wax woru ko wax deg na mm. dégg woru wax lool mm-hmm. woru mëna fëgg dënnam ci xam du yëngu ba muy jël tuuma bu rëy bobu di wax à public mm-hmm mo naa yem fi ma yëpp man maa ngi ne kenn bëggatu maa teg bët ñu bëri bëggatuñ ma gis ndax waxu as dabala nee na ko lan tuuna mbure maa waala répète répète ça répète ça maa waala àll maa waala li maa waala lii moo tax ñu porté ko plainte tuuna Ih, bener ya, jam. Iya, kampung. Kampung merci waay kampung. Wala be jeex xol be jeex. Bu di merci. Mais tant que atewuñu Aziz Aziz Dabala mais mu tàll. Ñu xam lañ ko wala ban pexe la ci doon def wala lan la ci sama yoon newul ci Man mam waalo gay defara maa dañ ko téye. wax tantay as dabla bi li wax waru ko wax deg na deg warul wax loolu mhm. warul mën a fëgg ci xam du yëngu ba mi jël tuuma bu reey bobu diko wax <laughs> mo na yem fi ma yem man ma ngi ni kenn bëggatu ma tek bët ñu bari bëggatuñ ma gis ndax waxu as dabla maa wala day ruubee <laughs> dafa nek di ko ruubee mu koy tuddal tun bi waxul tun de tuuma la wax tuuma tuuma nee na maire bi tuuma bu rëy boobu. tuuma pour ma war a ma tiit. tuuma la tuuma bu rëy boobu. leen mu nekk tuun rek. maslaaw ba fi may wax ni maslaaw ma ba baa nuy àtte la ak tabla. du ne nag du ma nag wala may bëgg bës wala may bëgg tur naan diw moo rey doomu jàmbur du ko def. mais sa xel tey na as dabala mais. mu tàlli ñu xam lii lañ ko wala ban pexe la ci doon wala lan la ci bokkee sama yoon newul ci moom hmm. man mam waalo gay ne fara maariñ ko téye maa ko wax waaye it tanta as dabla bi li mu wax waru ko wax dëgg naa dëgg warul wax loolu warul mën a fëgg dënnam ca xam du yëngu ba muy jël tuuma bu rëy boobu di ko wax à public hmm. moo naa fi ma yëpp man maa ngi nii kenn bëggatu maa teg bët ñu bëri bëggatuñ ma gis ndax waxu as dabla dëgg rek nga ciy wax barke Seydina Muhammad am na ñu bëri bëggatuñ maa gis. ma jàpp naañ ne képp la bëggul gis ci kaaw nabu Leye ndax Dabala. dëgg rek laaj ci dëgg bi nga wax moom moo tax mais waxoo ci leen li nga xamante ne. ñu bëri dañ ma ciy complot ko kalan soo gisee keroog may live mhm. am koy bind na ma as Dabala ak Waly ma tàng parce que dafa am yoon yoo xam ne dama ko ciy dund. Mhm. gaa sa xale yi tax ñu ma ñu ma ma ko ciy dund dérangé wuñu ma. man la ñuy wax <laughs> maa xam nga maa xam ngeen ba waal daf maa bloqué daf maa bloqué ko rek baax na yow lay wax de daf maa bloqué daf maa bloqué ba waal moom tamit moom moom bëgg na jàppale mais moom day ragal tamit moom luy problème bi non daf maa bloqué daf maa bloqué daf ma bloqué dama rëy muy bëgg nga dama ak dabalaa ak waali ma tànk Mm-hmm. parce que dafa am yoon yoo xam ne dama ko ciy dund. Mm-hmm. gaa sa xale yi tax ñu ma ñu ma ciy dund dérangé wuñu ma. Mm-hmm. parce que man yooyu ñaaw wi am ci réew mi aw ma ko. maa ngi toog fu mu war a nekk. Ah. gaynde ku ñàkk fayda ak ku manka kenn du ko dàkkantele kooku. ma toog nag fu ma war a toog toog sans wetu yaay ji. Mhm. valewu ma suusuma <laughs> tambaambala jiw ma taxawaala jiw ma maa ngi toog lu xew. lépp nag doomu ambassade yéen a taxaw naan maam waa daa commencé di taab ngeen di dafa war a taab ci tuñam boobu loolu la dégg. <laughs> sama ndaay sama kër baay maa koy faj ba pare. Mhm. maa koy faj kenn doog a teg loxo. kon ma neexuma xas te neexuma bañ. xam nga yéen a ko fi yéen a ko xas ngeen ngeen ma ah yow ah déedéet yow yaa yow ni dégg nga dafa taab ma ko na taab ci gémmi man mii maa wax loolu. loo loo tax mu boole ko fa. ma eggi. <laughs> ma adresse suba. Tambambalu ji ma taxawaalu ji ma maa ngi toog lu xew sama kër ndaay sama kër baay maa koy faj ba pare. Mm. maa koy lijjanti ba noppi kenn doog a teg loxo. kon man neexuma xas te neexuma bañ. lijjantiw ma ku ma bañ lijjantiw ma ku ma jéppi. Mm. xam nga lan laa xam. dëgg la yàlla bëgg. moo tax su may wax damay mel damay mujjee di tànk mm-hmm. ndax yëf yi day da koy xalaat bu déranger affaire Abdou daal. Mm-hmm. ndax neexul tamit ñu rey sa doom. néeg ban ko rayee police joxewul accès pour ñu dugg fa. danga mm-hmm. ah, accès ñëwal. d' accord lu dugg sax li nga xamante la bëggoon mhm. rek yow comme ni ma lay waxee képp ku ne wala laa peut-être dafa bañ dégg-dégg parce que boobu ba tey sa ngay waxee. Mhm. aussi dëgg bi ngay wax tamit loolu moo am li nga wax mhm. euh, di ki nga xamante ni Aida. man maa ko ne ko amoon nga ay jamono nga def ben interview. ne carrément. Euh, ba tey mënoo leen am accès fi Aziz Dabala dëkk amoo leen yéreem amoo leen ay dàllam mu confirmé ba tey jii loolu la mais ci jaaxal mooy lan moo tax euh, yoon nanguwul ñu am ay yére Aziz Dabala ak yooyu ba pare nangulee ñu libéré ko naan dañ ko woon ba mu leer bañ jàngat nga am ci kàddu yi nga xamante ni keroog laaj naa ko ay mu tontu ko. loolu li ma jàngat bi ci am am naa yaakaar ne boo kilib amee su amee sax weyaar bari na. nit ñi war mën a jël def ko sax bii këram xool niñ ko rayee mm-hmm. ni ñi ray ñu ñu ñu ñu ñu defa ñu defaa loolu ba tey ñi ray soir biñ ko rayee dañoo war a teg teg da leen war ci penc loolu mooy yoon mm-hmm. ñu taxaw mm-hmm. bu dee ay paaka la ñu jénne ko bu dee jaasi la ñu ne ko bu dee pikir la ñu jën ko nañ ko ci faat ki ne gay gis naa ko fii marché bu bees am na fii loolu mooy yoon mais nag boobu ba léegi dafa yàgg. Hmm. nan leen lijjanti seen doom ji ñu jot ci ay bagaasam bu dëgg. Hmm. mais comme ñu ngi ci ñu ngi ci décembre. Hmm. xaj na bu décembre bi passé yoon dina génn lijjanti Aziz Dabala ak Waly lu tax ñu roy leen. xaj na bu décembre bi passé bu soobee yàlla. ah ci ci li amna ci yakim ne. Mhm. xana dinañ jënd bagage am yee jébbal ko yaayam. pour mu jot ci. pour mu jot ci parce que li dafa nek problème bo xamne ne lu ñu war a la mu jeex nit ñi. Mhm. am jamm tuuti. parce que li Abdou. Mhm. tant que lijjanti wuñu ko dekk bi jamm du fi bari. jamm sax nak du fi mësa juk jóg bu mës a baax am ba bañuy ñuy sàngoo barke sëñ Fallou parce que nañu ñu na wulay mo nek mo nek jënd bu téxel libéré am na liberté provisoire. libéré provisoire xam nga nu ko ci waxee. tubaab waaw du yoon ci niñ ko jëndee. ci niñ ko jëndee. Hmm. nomb lay sax war woon a bëgg ñu jëndee ko ci nii. daa waroon a toog. ba mu leer ba taxaw baraan ci yoon. Hmm. léegi nag bu taxawee ci yoon bañ ne ko yow kat lii nga ci def. yow kat lii taxoon ñu téye la te gisuñu ko lii tax ñu bàyyi la. loolu moo doon tax mu nekk à l'aise hmm. mais wax bi dama nekk li nga xamante ne damay liggéey te firim Dakar laa liggéey mm-hmm. te actualité bu amee force loolu sama liggéey la ci lañ may fay ci lay lekk ci laay naan mm-hmm. du dëgg mm-hmm. mais man dama ne woon waxu as dabalaas ak waal jotuma ci wax ak di waxu as dabala ak daf ma tëj daf ma tënk daf ma tëj dafa tëj sama wërsëg parce que xam nga lan moo tax gineek Casamance ak fu ne ñu ngi fay mi Casamance barke ma ma war war nañ ko dëgg Casamance Côte d'Ivoire ñu ngi fay dem pour moom waa lak ak ñu nag ak jumboor de. waa léegi moom wërsëgam wërsëgam ana wërsëgam ana deewu as dabala. Ah, lu garaaw lay wax ci wërsëgam tëjoo moom. Sira day wax ne dañ koy tëj pour mu tëj làmmiñam. buñ mhm. la tëjee kay pour li dëgg la fu ne ñu fay dem pour nit ñi noppi. Hmm? ku ñu fi dee. kon musique bi ngoone doon wax. musique bi ba tey mi ngi dox. musique bi waaw da tey ëpp. musique bi ni ma ko ni ni ma ko expliqué. Hmm. géntu ma ko de dañ dañ ma ko expliqué nit gis nit. ñu dem ci dëkk fu nekk mu nekk ci dëkk bu sori. ku tëj seen làmmiñ ñu wax ku tëj gémmiñu nit ñi. Mhm. man nag sama gémmiñ nit mën na man. xanaa xam moom moo tax moo tax sànq maa ngi alerte Aïda Aïda nee na ma ok si biir live nee naa ko fecckat yi ñu ngi préparé pour jéem a ñëw seen kër buñ la wooyee résultat leen ñoom ñëpp. Eh, lu tax ñoom ñu ñoom ñu bàyyi ba heure bi ñu koy soog a dem foofu rek dafa am luñ dafa bëgg def ñoom si boppam. am na luñ bëgg a def yéen a ngi may dégg. Mm-hmm. am na luñ bëgg a def am luñ a buñ ko wooyee téléphone añ bu ne naam. mhm bala mu ne leen alu mu yem fa naam bi bu mu bu mu jib mhm. dégg nga baax na waaw yow yow kii kana daba xaw ma nan daba daba dikko daba dikko waaw daba Mhm. dafa man waxkat bi dinaa dawkat comme Guinée nga fay dugg sama bopp bi limité aw ma gaa laaj association bi bis buñ la woowee téléphone naan la waaw Aïda ala maire ba mi ngi si jàmm xam naa danañ fa ñëw ngoon suñu délégation bi bul wuy bul xoolal nee leen toog leen bu fi kenn ñëw mhm. doy na waaw doy na alors jeex na waaw moo jeex quoi mhm. tax ma bi wax naa ko fii ba mu man leen wax ne sama yaay amul jot man xam nga lan la leen wax ambassadeur danga naan ko danga naan Aïda na leen wax sama yaay fi mu ne mënut a recevoir kenn xolam neexut toog leen rek da ngeen koy fàttali Aziz toog leen ok doy na toog loolu laa bëggoon a wax léegi nii merci daba daba yee eh. dara bi tey ji ñu wugër ci am lu ñuy àndaale Ah, d'abord. foofu laay waxee de seen ñëw foofu du gratuit de. seen ñëw du gratuit de. moom da leen dem du sore ma foofu laay waxee quoi mais instant bii nii pour ñu pour pour mu seen loxo yi quoi ndax mën nañu ñëw nuyu maire beeg yooyu noonu xam nga yëpp si ay mystique la foofu. ba tey ngi dox. mystique bi waaw da tey ëpp. mystique bi ni ma ko ni nañ ma ko expliqué. Hmm. géntu ma ko de. dañ ma ko expliqué nit gis nit. ñu mhm. def dëkk fu nekk nekk ci dëkk bu sori. dëgg la pour tëj gémmiñu nit ñi. man sama gémmiñ mën na ko man ne kenn toj sama gémmiñ. Hmm. waaye nag am na yenn yoo xamante ne nii. Hmm. bu ñu xeexanteeg yow ci zaahir pour ñu mën la yomb dafay yomb. Mhm. ndax man xaw ma sëriñ. Ah. xaw ma def lu ñaaw. moo tax dama ne man waxu as dawala wax dëgg yàlla dootuma ci wax. parce que nag. boobu ba tey wax bi am benn avancement. Mhm. fi ñu nekkoon nag Abdou fa lañ nekk. xam wax nañ fu mu nekkoon fa la nekk. wax nañ fu mu nekkoon fi mu nekkoon la nekk. vraiment soxla nañ moo tax ku ci am oyof bopp. Mhm. boo ci deewul. Mhm. di nga ci am gàllankoor. boo ci amul gàllankoor encore jënd ci tëj palis parce que Nabou Leye ñi mu porté plainte bari na torop. d' accord euh, ba tey Aïda <coughs> dama na ko laaj ne ko Aïda. Eh, sénégalais yépp nangu woon nañ ne xayitu Aziz Dabala ak nabulay tay bu fekkee nabulay Leye am na liberté provisoire est ce que tay doonu rafet mu ñëw jàpp ci yéen ci combat bi Aida na ma soxlawuñ ko na toog fu mu toog bañ taar nga am ci réaction nga xamante ne Aida am na ko dafa mel dañoo jàppal nabulay ba léegi que ni dafa taq ci yëf yi. xam nga nabulay dama ne. kenn dàqalu ko yoona ko dàqal. Hmm. ndax man eh, Abdou. Hmm. oto yu ñuul yi andi ñoom nabulay. dibi la xam nga naa laanaan gis oto yooyu. lan kagul bi couvre feu amee laanaan gis oto yi ba guddi jotee trois une heure jotee. ma ne oto yan la àddina ngi tukki nag ndax mosuma gis yi oto. man ci dégg laa mos laa ñaareel ci laa gisee oto yooyu mu dugg ci tribunal bi. moo leen dugal moo leen génne waat. tagul ñu tagule woon seen kanam yi. merci kon ñun takkaluñu Nabou Leye yoon a takkaloon Nabou Leye ndax yoon bi ko hmm. moo jaxasee xelu nit ñi. ba tax ñu ne kii lan la war a def ba yoon war koo téye. dëgg la de. la man après man dama apprécier yoon. Hmm. dama leen a jaajëfal parce que. conscience tamantil bi Nabou lay amoon keroog. Hmm. wax dëgg yàlla dafa yéeme. conscience tamantil bi. daf ma yéem wax dëgg yàlla moo tax bi leen police bi ko police tey loxo maanaam ne police moo xale parce que xale bi dëggante gim àndal bu fekkente ne yow xamoo ni dëgg doo ko ci foog waaye bu sa xel ñaawee dëgg it dinga ko ci foog ndax ñoom ñaar du ñaar kenn lañ foo toll as dabala bu ci ndaxi këram na bu lay moo mm. mu dee tànn tax nee na ñetti caabi la ay amoon. xale bi dëgër lool. mu dee xale bi dara dérangé ko. Hmm. mu dee may wax ak moom jaxran lu ma wax ak moom mu tontu hmm. sama morom lu ma wax moom mu tontu ko. Hmm. kon ban ba ko police téye ma naa ne police du nit. aywa nee na jour boobu bu ko fekkoon ak lu mu mel ci Aziz boobaa kenn waxatu ko wala fa lay jaar dof. moom du dof aywa moom tamit moom bu doon dof. dof bu yàgg. Aida yaa xamante setul dara tamit. Aida daful de Aida du ku dof dul xeesal ba weex jënd say béy bi xees di def say kap parce que man xam nga lan laa xamul. naa fekk dëgg laay wax. parce que bu dee ko amee day feeñ ci yow. nga soxor te ñaan ak kefam yu bon. déglu ma Aida xala nga moom ni mu bokk ak Nabou ni mu bokk ak Aziz Dabala. Aziz Dabala bokk ak Nabou lay. yaay bi première ba na tris woon na mais bi mu njëkkee jënnaat déglu ma Abdou bi mu njëkkee jënnaat moog yaayam Aida daa jekk jongo ma belli saga bu hmm. as dabalaan nday ak baay moo moo nanguta bàyyi xeesal ba ban atte magam ji hmm. asatuma nawu lay du xaru lu tax muy xaru waa kii mooy naa fekk bi mudaf, ay bébé xeer yow gisagoo dara ba jekk xam nga la laa ah mbete kuy tënj. ceeb neexaluma kenn ah. dinaa d'accord yow loolu. damaa bëgg nga xam ne. ma waaw naa mindaaful bëgguma lu neex kenn li ma gis. ci Aïda ak xam ci dafa gën la dara sax. gisuma ci Aïda xam nga ki koy posé mu ngi koy continué sax. vraiment Abdou jigéen laa. tiim naa ko jox ko micro mu wax. jigéen la wax boo ma gisee jigéen la laa yow nga. te it nit ku xam ni dëgg xañ na sama wax bii dinaa ci bëri ñu ma ci critiqué de. Hmm. mais dafa neexul mais dafa. man damaa tey ci njëkk a critiqué sama yoon law ci. lu Sénégalais di ci ànd ak man ah, nit ànd ak yàlla moo gën nga hmm, nit yàlla bëgg la moo gën nit bëgg la. Hmm. mais Aida sax moom moom moom mi bokk as dabala moo deew déglu ma de. asatuma na nabulay nabulay lu koy ray lu tax muy dee. waxul mu dee dana bu nekkoon moom la quoi. dane hôpital lañ may. jëfarijee moo gën a jekk ci hôpital moom père moom moom kii Aida xam tax mu jekk ci hôpital moo waroon na bàyyi xeesalam boobu jënd jaaroom bii bàyyi béy bi xeeri. may musóor ba problème bi ba problème bi egg. barke yonent yàlla Muhammad maa wàllu daan naa fekk day neexalaal. Euh, euh, euh, problème bi moom lay xaar moom du. problème bi moom moo ko yàkkamti ba ba chaque jour bu bu génn jotee day bokk ci ñuy génn buy génn na xool ni muy génnee na la parce que métit abdu mm. dafa am nuñ koy dundee métit boo koy jooy day am noo koy dundee ci sa yaram ci sa comportement ba boo waxee ñu ne waaw dik ko ci leneen d'accord man da jàpp naa ni <coughs> ah, journaliste na yow da neex yow yaa gën a xam ne ayda bi <coughs> ayda bi su bëggoon ne wax namu lay comme li mu expliqué. Mm-hmm. billaahi li mu expliqué moom. Mm-hmm. ci moom la gënoon a jekk ndax bokku ndey ak baay daa foor rakk yi ma bokkoon da ak baay ku ci feebar ma yàqu waxatuma nag yàlla tere. te moom doom sama rakk ji ma bokkoon ndey ak muy àll si bi. mu toll ci juróom ñaari at ba fu ma toll dama ko xalaat. barke allah faal ci kooku laa njëkkoon a gisee néew fu ma toll. loolu man sama yaay ak suñu wanteer xanaa lu tolloog ñeenti at bëggu ñool ñu lekk ñu nanuñu heure ndekki dañuy jooy añ dañuy jooy parce que xam nga xale bu miin ndaay ak bu akaram asatuman as dabalaa mi nga xam ne nii mhm. nag as dabalaa moom nonga loo kenn du ko fàtte de mhm. kon touriste boobu ñuy wax ci nabu lay mhm. ci ñoom la gën a jekk d' accord ay dana changé méthode d' accord maa loolu am na solo baax baax <laughs> nee naa la nit nga hmm. xamante ne nii léegi mun naa nitu actualité nga ñu hmm. euh, ñu ñëw te duñu waxtaan ak yow ci li nga xamante ni jot na xew naam hmm. nga xamante ak Aziz Dabala loolu xamante nga xamante ni moom mooy nabule ñoom ñaar ñëpp nekk ñoo ni say doom lañ kon tey loolu bu xewee peut-être nañ ñëw laaj la ci ah, donc dañuy génn foofu dem ci nga ni mën ni sa góor la di Wally Seck euh, le 7 décembre bi passé gis def Adidas Arena am nañu sah sax ne du am na ñi nga xamanteni ne daggoon nañ billet dem di xool fi nga xamanteni du fees ñu ñu filmer ko pour mën ko partager naam loolu gisuñu ko ci le 7 décembre ndax nga gisee Wally Seck Paris fee ci Adidas Arena. Abdou Mbégte. bismillah. sant bu baax. mais du xaalis nekk yaa bu social aussi. Sidi yóbbu. kon jeex na de. ku ci mën a mën lu ma nga caa dindi demoo kii luñ ko waxal moo ko def ak xefam kii maa ci maa waalo kii day change doom def leen def leen ci ci ci prison bi yow toroxloo sa jur nga xef nga mel ni ku takk parasol ngay xasaate kii da nga naan chaque jour mu def ay xefam laal puudaram kole kolam ay doom nekk prison safu moom daal boo ko xasee si doom yi lay doog a nekk gaynde waaye muus léegi nag ay mu jël Aida teg ko bët siiñ ko fang mel ni moom Aida da koo moom daal xam nga ñan ñoo baax ci moom xam nga ñan ñoo baax ci moom boo ko ne jàkk boo ko ne jàkk nga xam ne am na lu ko metti waaye Aida day souffrir da ngay xam ne Aida mii am na lu koy rongé ci biir billaahi ne kii am na lu koy rongé ci biir mais mam walo daa bon pataawaayam boobu mu ne mbàpp mbàppaaram weenam yi daanu yooyu ne ay baagi teen na arrêté lu mu fi wax nit mën noonu ko koo wax man sama bopp bi day metti billaay ba garaawul xaar leen ma wàccati rek ndax sama bopp bi day metti te dinaa fi waxati ba mer lii jaru ko de ñii ay bàyyi ma lañ ñoom ak mala yee ay mala lañu de muy xaste ku wax bala nga eggali nga wax loo ko xeebe non kii dafa yabaate trop mala lañ ñu koy mala sa xalentane parce que lu ñu wax wax wax bu ñu balaa ñuy pare nga jëpp leen ti seen wax ayda daa rafet nag moo tax ayda dafa rafet moom de kenn xam rafet moo taxit tu euh, ñëpp ko bëgg gis nga boo am na boo rafetee dafa am ñu lay bañ ma ayda comprendre ko rek kii daf la bañoon avant sax lii eh, man maa ngi wàcc maa ngi di leen wax ñu fanaan jàmm salam wax ne re neena na Aida xanaa daa jël faru yaa yee nag yaa yee laajte loolu yaa yee laajte loolu. Hmm. bon ba bëgg a dee. da nga ko wa légui mën nañ ko reyal ba paré bëgg muy ñaawlu ne kuy tënj. mën de man waaru Sénégal ñi da no bëgg Aziz di diwoo doom kii kon Aida di diwo doom. bëgg ay da di ngeen baal ma asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa mais moom maam mi vrai mbaam la vrai mbaam mooy moom yow moom daa xamul sax nit est ce que moom xool na Aida bu baax pour xam Aida li muy souffrir ak famille bi li ñuy dem luñ luñ luñ nekk di di di dem boo ah? daa xamul sax nit daa soxor kii soxor piir moo ko dal nii parce que moom fi mu ne nii moom ñii bës bi ñuy am sax moom métti na ko. xam naa lu mu bëggoon naa xam naa li mu mooy jàppaleen Aïda mi ngay xaru moom loolu la bëggoon di dégg tout le temps te yàlla may. non kii lim lim bëggoon lim lim gënoon non <laughs> non kii li ma ko nar a wax yëpp dama koo xeeb sax dama wallaahi dama koo xeeb kii kii merem dama doon julli nii dama dama doon ñëw pare juli mais damaa déggal lii rek ma ne il faut ma yéeg parce que kii kii vrai mbaam la parce que man xaw ma nan ngay ngay ngay ne koo xam yaa ngi jur. nga naan yow sa xaw ma kan ah, ah, yow bi ngeen di ndékki da ngeen di jooy ngeen añ di jooy loola la tere bañ añ lu mmh. tere bañ <laughs> reer waaye kii man kii ay kii day daa làmmiñ lool waaye daa rëy làmmiñ te li muy wax dara gëmu ko ci tey bu waxee lii wax de su ko leneen moom toog naan moom mooy moom mooy mooy fayal boppam moom keroog keroog la moom papa naa ah, mama naa mama naa ba mu ko fi jàppee corox coroxe ko ba pare ñoo ñoo ko doon eh, jox ay vingt mille fii muy toog di leen ñaanal mel ni. lekk kooku kooku kooku mu ko waxee. ay bal. la ko mu paree dem toog ci boo toog ci ronam ñooñu di ko di ko di ko di ko jox ay di ko di ko wave ay cinq mille ay dix mille ay vingt mu leen di ñaanal mel ni mel ni ku mel ni kuy kuy yalwaan kii war na wax keneen dar. kii vrai mbaam la vrai doom. mbaam la mbaam la nag waa Pikine mais waa Pikine doy nañu waar torop. dañoo soxor dañoo soxor. non waa kii moo soxor. ak ay xefa mu mel ni ku ji ku teg ay ay. mel ni laa waroon di ko romb ko ak ay kii kii kii li wax nii daf maa énervé lool ambassadeur. ku soxor la kii ku soxor la naan mu toog xeesal bu xeesal kii moo ngi sëy xale bu ndaw di sëy bu sëy bu defarul lu kii di pël cent pour cent kii bu kii dafa xeesal yow yaa bëgg xeesal te munoo xeesal nga mujjee jël teint bu noir nga naa ma dafa xeesal kii la moo kii ay ma léegi kon xanaa dafa xeesal yow kii famille am ñi gaa yi xees xanaa gisoo Modou Ba mhm. ñuuluñu moom ñuuluñu kii mamaanaa Allemagne kese moo baax ak moom dinaa wax Rox nag attaqué waat Rox kañ buñ paree suba ñu woo ko incha allah kii kii xëy xëy bala mbal mbal rek ci rajo yeeg télé yi kii kay kii kay kii kii kii kay nañ ko bàyyi ak kiyam gis Aida mu ne Aida daa xeesal. toog di saraxtu toog ci toog di bi ku jóg euh, kii jëndal la machine kii may la ay dix mille nga toog naan loo liggéey yow yaa koy yaay liggéey li ngay lekk ak li ngay yóbbu sa kër yaa mën a yow yaa mën a kàcc. te gis nga tey nii bu ñu yeewoon rek comme par exemple kenn ci ñun yeew rek woo ko. wax ak moom ma ko oh, man de ci panel ambassadeur laa nekk may ko benn cinquante mille xoolal mu changé veste cinquante mille ma naan la dix mille nga naan la cinquante mille moom ak xaritam moom ak doomu ndeyam xaalis rek moo la ñuy waaye kii daf ma énervé lool waaye ak ngoone kii waaye kii waroon naa am ñu ma koy booleel ñu jël ko nox ko ba mooy bëgg a dee lan la fi wax ma mama naa xaalis lan la fi wax keroog dafa ne jëkkëram daf ko ne na dem toog noppaleku jog ci réseau yi ba bu paase maman bi mu ngay taal ay panelam di wax mu ngi foofu di wax di di photo menu poupée noonu di def yëfu xale te xamu meer la moo nga nekk màgget màgget pare bëgg wala xale nga bëgg a bokk loolu moo mm-hmm. sama tante moo daa mu ne ma tey bëgg bokk moo met bëgg bokk da ngay def lu ñu lay xeebee sa biir yaa ngi fi ma ma ubbil la sa mic Fatou Fatou yaa ngi fi Fatou tontuwuma euh, Poro Kanké yaa ngi fi parce que dafa am ñi dafa am ñi def demande ñu bari sax. saraxule boobu daan yéeg géej naa yéeg de mbaadu dara. man fan saraxule te buy wax absence raxule bi te muy naan rek ba jour bi muy mujjee noonu mu ngi xawoon jàppante tuuti ak bétti boobu ba léegi déggaatuma nga bétti ne waxu ko bi may bi may fekk ma tàng wante laa ki ngay wax di baal noonu boobu euh, ma maa ngi lay nuyu Chacha maa ngi lay nuy dégg après dinaa la jox par après ma jox mami mami nuyu naa la dégg nga nuy naar bu baax a baax Cheikh demal après ma jox mami wala mami da nga bëgg dem waaw man de maa waa laa bëgg a waaw demal maa waa la ne du nit mais Aïda kanamam ko xoolee xool Aïda depuis ba tey mu dem di bëlëfe mais nekkul boo ko xoolee rek xam ne nekkul maa waa la fefam yi mel ni mu taxaw fii di am lu muy wax moom maa waa mi du nit du xalaat te yow wax nga li ngay wax ba pare nga ñëw ba ci fin bi amoon lenn lenn looy wax lu dul di attaqué waa kër Aziz mënoon na def leneen leneen lu dul attaqué kii Aïda Aïda yow boo xoolee ci commencement ba rek nga xam ne Aïda instant bi dafa sonnoon kenn xamul lan lay nuyoo loolu ba tey bàyyiwu ko Aïda dafa jeex loolu boo xoolee xam ne Aïda dafa jeex mu taxaw fii di wax naan xeesal lii xëy na mu war na lu jëndi la foo ko fekk kanamam gi day poussé doo xam ma maa la lan lay nuyoo mu taxaw fii di wax. maa waaru ñi daal du nit maa waaru ñi billaay du nit ñi daal millionnaire kenn doo xam loo koy wax rek merci mami Chacha nuyu naa la yow ça va nekk nuyu naa la yéen bu baax yëpp ak ñi suuf waaw man dama am lu ma remarqué ci maam waalo mi mhm. benn kii du nit parce que bu doon nit am na loo xamante ni du ko wax dafa am fu mu jot a jaar nag ba pare bëgg sang boppam bëgg raxas boppam parce que dafa am lu mu jot a wax na bu lay ba pare na bu lay mm-hmm. génn mu bëgg sang boppam bëgg taxaw ne moom gaynde la dafa am fit du daw du en arrière donc day bëgg a ci camp bi laa yaa ngi dégg mm-hmm. muusu géejawaay nga mais doo gaynde géejawaay yow ya wara a toroxlu yow mi say ñaari dom nek ci prison bi ngay xef ak talay 24 heures sur 24 sa robbu yoy di melni robbu 1900 kay la jug jug ñu dem yow xawma sa robbu isa wara sa sa sa yi ki ki bon na way soxna yow lo bëgg ay di bërëngu di toroxlu di joy. lan la yow ya wara a toroxlu yow mi say ñaari dom nek prison ayda elle est très belle juste naturel teint clair set wetch lan ngeen bëgg yeen du ngeen may nit ñi jàmm faru leen fenn bu ngeen jógee di wax fi di wax fe buñ la yow fiñ la fekk ñu ngi la talal micro yi ngay tararare di ratte ratte di ratte ratte di tararare fu ne nga wër fa di di di ñaan edd ak lu kenn xamul jugal nga dem takku nga liggéey ngay gaynde géejawaay li nga wax lay lay wax nga ko ba pare do taxaw fi naan da ngay attaqué Aida duñ ko nangu duñ ko nangu ha ah. bon nga torop li ngay soxor ak sa xef yooyu di mel ni lu may bañ a tudd ki dafa bon waay soxor. ça va soxna si. mën nga wax léeg-léeg li nga koy wax ba pare ñëw taxawaat fii naan ay da ngay ngay ngay ngay ngay ngay mënu ma sax waay ki dafa soxor waay. <laughs> awa may ko tudd mu pare dénk nga ñëw. billaay xoolal tëddoon naa de. non non awa déedéet bul siifee noonu am na. may ma tuuti rek dina eh, Chacha wàcc na. xoolal may ma tuuti rek di nga ñëw dafa am ku jiitu dénk après ma may la nga wax dénk kay ruusee ma profil bi borom profil bi ñemewu ma ko ah Cheikh conté Cheikh <laughs> Cheikh wala da ngay bàyyi jigéen yi pare si bàyyi leen bàyyi leen ñu wax bàyyi leen bàyyi leen ok wa légui awa kon démal après kii madame Diop ñew dama man dama teddon sax wala téléphone bi la tégné sama bop ni rek di dégg man mam wala jéppi ko ñom la ta mënu ñoo nekk benn couleur moom chaque jour ak li muy wax ak tilimaayam boobu Aida dafa xees naturel est-ce que yaa ngi may dégg bu baax maa lay dégg bu baax na may ñi ñi jàmm ak tilimaayam boobu moom yorul sax teint noir bu rafet teint bu didim boobu Aida pël la Aida dafa rafet naturel man xanaa moo gis nga Aida dama naan Aida moom ni mu ni mu dékkoo affaire bi nii bu doon keneen la ba tey dof na. Mm-hmm. bu doon bu doon moo dem ci appartement bi kenn waxatu ko. kenn waxatu ko barki Seydina na mm-hmm. loolu moom dëgg la léegi ñoom waaw mënuñoo nekk benn kële mais bu teyee ñu mel nii bu subaa ñu wax leneen bu subaa ñu def leneen te tey xool bu suba bu ñu woote waatoon suba fële buntu ko ñoom Aziz moom bu fa demaatoon du wax lii muy wax leneen lay wax ñoom nañ arrêté yi ñuy def bilaay man li métti na ma torop niñ leen di sànnee xeer ne métti na ma ki dem dem na ba pare ku ci nekk di jéem a indi ay wax yi ñëpp di ko teg seen rafetu ah ba pare man xoolal damay damay lancer appel fii xam naa xaw ma ba xam Aïda dina ko déggam déet mais ñoom jour bi ñuy génnaat ñu ko war a teel di wax comme ça bu ko defee ñëpp préparé ko ñu mën a dem daji seen buntu kër yi fële euh, si si buntu seen kër fële nu mu tuddee sax ginnaaw raay mm-hmm. parce que man damay yeewu rek gis affaire yi si TikTok beeg yooyu wala live. wax nañ de dugg fii rek. mais semaine boobu yëpp ñu ngi woon ci lool bu ko defee ñëpp ñëpp dajaloo dem fa ñii dañ leen war a jàppale kenn warul bàyyi li mu sedd. ah billaahi tëddoon naa pare. Ah, ok merci merci ok kii madame Diop. madame Diop yaa ngi fi maa ngi kii maa ngi tijji sa mic madame Diop. maa ngi leen di lay dellu ziar bu baax. ñu ngi ci bu baax. alhamdulilah. jàmm rek. sant bu baax. Gaynde Waalo moom wérut. parce que wérut de. parce wax ñaari wax yow nga jàppaat na bu lay di ko yàq musiba te nga ñëwaat naan patati ak ñi wérut du am na li ko doy. allo. ñu ngi lay dégg. Ah, moom ko doy am na ko. moom de waru woon sax nekk di wax waxu jàmbur franchement boo amee situation bu mel nii billaay dafa am lu la war. ñaari doom yooyu ñoo bokk rek ginnaaw géejawaay jubuñu ku fa teg sa portable ñu ne ko cas. sii mu lijjanti boromam mu problème am moo gën mu lijjanti problème jàmbur nit da ngay maandu am na doon àndal di fecc ñu ne foofu dañ cee maandu. moom bu waxee ne ànd naa ak ñoom nangu la day duwul waxul dëgg bokkuñu woon fréquence sax xanaa kay wax ji daa ñëw rek mu dugg ci làmmiñam bëgg a siiw waaw dafa war a maanu bi dafa xefe mel ni parabiris yow munoo wax ba ñëpp dégg la nga ñëwaat di waxaat beneen lii nit dangay maandu la nga war a lijjanti say doom yee nga war a lijjanti nu ñu normalee wa loolu de war na loolu rek doy na ko de. waaw nga am doom bu nekk prison loolu rek war na la doy. loolu waroo bu doon man warul sax nekk ci plateau di wax ci leneen. loolu la ñoom xar ñi bokk ak moom Nabou Leye ñu doon ànd ak moom ñoo ngi sa ginnaaw géejawaay boobu waaye déggoo seen làmmiñ waaye moom moo war a tëj làmmiñam bi yow doo mën a yàq dara Nabou Leye ba pare wëlbatiwaat demaat ci waa kër Aïda di wax ci ñoom lan lay wax ci ñoom. dana leen xamal moom kay moo war a doomam. xam nga kër gi ayda kasa fay wax moo tax le fait que ñuy gis ayda moo moo leen loolu moo leen di énervé sénégalais moo yor jikko boobu. mais Aida moo moo nekk yaay mooy encadré yaay. magam lañu ñu rey léegi Aida bu waxul kan moo war a wax. ah ma ko war a wax kay. kon moo ci war a maaru. te gémmiñam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. nuyu naa leen. ñu ngi lay ngeen def yéen ñëpp. alhamdulilah. waaw ambassadeur ñu ngi kontaan ñu ngi kontaan bu baax a baax man lenn rek laa lu may wax. ayda moomu ku ko woo. déedéet mama man bugguma si. waaw damay far rek may ma dafa am ñu fi jiitu ñu de organiser ko ma rek. may ma léegi rek tuuti rek wax. demal waaw ah, demal demal demal Binta eh connexion lii xam nga tamit siif tamit sa connexion tamit Seydi Ba di siif tamit sa connexion baaxul eh sama ba <laughs> maa ngi lay allo. mu yee. lu leen waaw ma ne ah, da da ne connexion bi baaxul di. waaw ma mm. may dégg. bu baax. waaw ma ne moomu ku ko woo téléphone bum ne allo na ne bisimilaay. na mm, ne bisimilaay. Mm. na ne bisimilaay rek. Mm. bu mu toppal sax wala xawlu sax na ne bisimilaay rek. Mm. bisimilaay sëñ bi wuyu naa la bisimilaay. wala ndaw si wuyu naa la wala soxna si. loolaay na ne bisimilaay. kooku ngeen di wax kooku ngeen di wax na xaw ma maam naka maam waalo xaw ma maam jéeri kooku maam jéeri lañ ko war a wax du maam waalo sax ndax waalo naat na. <laughs> muy xefam yooyu di mel ni ba bale taxaw waaw di mel ni ba euh, taxaw bale lay nurool bari na wax waxam bu njëkk ak waxam léegi du benn de <laughs> moom day waxam yi dañoo juutu ni taat waaw ngi laa ku mun a jot am jàmbaar waaw yàlla nañu yàlla may jàmm rek. Eh, danaa bëgg daal nañu xam ki ray ki eh, kay min buri weltaade yàlla na jàmm yàgg. amiin merci. waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu xéewal te lii xam ko ba mu leer naññ ni jant. baabul waaw. ok on golle kan moo doon wax wala madame Diop woon. non panel bi xaaral man ko mer ba na fi dem na yoona merci maa ngi ni toog leen déglu de si voilà ñor yéeg leen na ndawtal bi riis na ndawtal bi riis yéeg ndawtal daa ko fee wax kenn daa ko wax kenn wax ju ñaaw <laughs> waa mère bi rey na ma maam jéeri sama yaram la xuma maam jéeri ka ragal ka nekkoon France ak jigéen boobu Allemagne Allemagne ñoom eh ñoom dafa am dafa nekkoon Allemagne ñi mooy toog ñu ñuy laal de ba fi génnee da ko attaqué bu mu ne pat mu wàcc ba mu fi gaynda gayndalu ka ca kaw tudd Mame Bassine mu ne moom mooy xaritu Mame Bassine naan da jëlal part ba ko xale yi soixante-douze heures lee waaw <laughs> balaa ñoo dee rek timis jot rek timis jot mu gaal a kalandoom rek dugg yo yoonu ravin nit ñëpp xam nañ li muy def dañ ko bañ ci biir rek waaye ba ko xale yi ne sa réseau ba ca yoonu estade ba moo koy wax réseau clandestin dafa garaaw waaf de gay dëgg dafa waaf de mu lijjanti boppam moo gën moom ñaari wax lay wax mun ngay xool version bu waxoon njëkk ba ak li mu fi waxaat nit ñi dañ dañ tourné ay wax. moo ma tudd justice pour Aziz Dabala. moo ma tudd yow kay nañ la seen nañ la seen. waa kër Aziz Dabala waa kër Aziz Dabala moo ko rey mu jógewaat foofu génnaat foofu <laughs> xoolal loolu. ñoom ñoom seen yàlla moo génn taxaw wóor na yàlla xam sax fu mu taxaw waaye yàlla na leen rey rey dofoo jënd jàpp ko pantongalu ko ndax dofoo jënd xaalis yaa ngi noonu teg sa ñetti pepp robu ne da ngay jaay dofoo jënd jàpp la pantongalu la gis nga bis boo laalaatee Aida mbaa nga wax ci Aida xam nga 72 heures 72 heures xaw ma. non non non non. ba ko caga géej waay rek. da ngeen bàyyi doomu jàmm ni génne baal bi sax day am fu ngeen ko caga géej waay rek caga géej waay. ñàkk doo ñàkk sa mag ba pare chaque jour ñu teg ay ay ay ay dafa war a bëre moom dafa war a xalam moom dafa a. ñu ngi dellu si yàlla a baax alhamdulilah Kenzo. lu ma doon wax bëriwul quoi. waaw ñu ngi mais maam wàlla boo gisee ñu teg euh, li mu wax maanaam yéen da ngeen bëgg a focus si si ay lu mu wax si Aïda après loolu noonu débat bi du leen jëmal fenn quoi loolu benn parenthèse la woon moom bu mu doon xool te parenthèse boobu amaana waru ko woon tudd quoi yéen jàpp ngeen ne moom dof la ba mu tudd ko kon da ngeen lal parenthèse boobu dem si lu am solo lu mu wax quoi ñu jëm ko waxtaanee mais boo leen bëggee téye trois heures de temps naan maam wàlla dafa lii maam après débat bi du amati suivi quoi. man ngeen jégal ma nak bu nekké sama wax neexul wala. merci ok merci dama gisoon ay baaraat ñom ñep tamit ni la démé dañuy dugg wax ben mm-hmm. wax ñu jël fo focaliser ci ben affaire bi quoi man suma ma nak xam nga da japp di ne lu mu wax non amul sens quoi parce que nit nit mom bu defarul xam la la wara def. comprendre yak ye man may ngi jégalu bu wër nak di tuub. Mm. lolé yàlla fu xëy dëgg. lolé laa amul mooy wax quoi. merci ok merci li nga wax effectivement pourtant jóguñu foofu de dañ ko doon sànnil tontu boobu rek mais duñ fa yàgg tënkeen même pas duñ duñ fa yàgg fii nii nii nii nii dañ ko teg rek lu mu wax ci Aïda mm-hmm. ñu tontu ko foofu mais ñun duñu duñ duñ téye foofu parce que ñun dafa am fi ñu nekk ah loolu c'était juste tontu deux minutes trois mm-hmm. minutes yu pare ci parce que moom boo xoolee moom mënul wax quoi mënul communication amaana yéen bu muy soog commencé yéen a ngi naan wala wala ngi mais après bu mu xam nga day saa rek mel ni ku génnaat si fu mu nekkoon quoi dugg feneen après yow doo comprendre léegi da ngay jël si li nga xam ne moom la wax mu concerné panel bi ñu jëm ko waxtaanee quoi. xoolal li mu wax li mu wax. waaw si si gars yi ñu ngi naan madame Sagna madame Sagna la naar bi moom la kay. déglu madame Sagna gars dañ bàyyi di di xam di lijjanti maanaam nit kuy wax wala di genre. nañ xool fu muy waxee quoi yow doo ma déglu man ngay waxal wala commentaire yi ngay tontu man maa ngi wax yow ci li nga te wax déglu ma fii ok man loo mun ci doon sama yoon nekku ci l'essentiel waxal ci l'essentiel bi rek man loolu du sama cas xolal euh, Mame Wallo amul dara lu mu wax luy lu luy jëmale panel bi kanam est-ce que xam nga ko mm-hmm. dara waxu fa dara lu mu wax wax na ko répété waata ñun xam nañ ko ñun lu ñuy jëmalee kanam xam nga la la avocat mm-hmm. yi lañ bëgg lijjanti ok loolu la commanditaire bi loolu lañ bëgg a lijjanti. ak ku mhm. yónni ku yónni nabule loolu moo ñu intéressé mais pour te dire maam waal dañ ko teg noonu déglu ko rek mais du ñu yóbbu fenn ñun xam nañ ko de ñun ñu téyee nii amul dara lu ko mën a dinti xaw ma nag kuy madame Sagna léegi yow tontu leen ci loolu jërëjëf. ok dëgg la man moom loolu laa amoon lu may wax quoi juste sama conclusion la woon rek. waaw ok c'est gentil. <laughs> léegi Mimi mais bu la neexee Kanzo bu la neexee toogal fii ñu commenter ci waxtaan bi bàyyi ma wàcc comme que nee na ma non non non bàyyi ma wàcc ba yàq live bi bàyyi ma wàcc man maa yàq live bi man non non non li nga wax sax dëgg la <laughs> mun nga toog ñu waxtaan na ma wàccee mun nañ focus eh, waaw def leen ndànk def leen ndànk man mii man mii man mii du ma man du ma wàccee parce que man xaw ma man xaw xaw ma ko de wala dama fàtte anyway man moom ku yéeg fii di nekk ci débat bi bañul man maa man maa mos a yéeg nii xam nga li ma la yaa ngi ko yaa ngi may déglu est-ce que maa maa demal sama compte jabar laa doon waxee TikTok quoi mm-hmm. yaa ngi fis ñu am fis si fuñ tollu si débat bi. ma am mhm. lu ma laaj ambassadeur. Mhm. xam nga après gars yi ne ma waroo ko laaj quoi ma ne dama kon kon kon juum naa foofu parce que bëgguma woon lax li après ñu wax mhm. loolu mu dee ah, après ñu ne si leneen léegi ma jël sama beneen compte asam ñu ne ma da nga war a da nga war a laaxatu quoi man leen man awma lu may ragal parce que Aziz sama xarit la. yaa ngi comprendre. mais après commentaire yi li nga siy gis yow da da ngay bëgg a dugg sax mais doo mun a dugg quoi. loolu day fekk bu góor dugg xaama wax la benn affaire. Mhm. combat bi bu la ñore. waaw. commentaire. luñ la mën a wax si lañ bokk. déedéet buñ la waxee dara. Mhm. yow da ngay am objectif lii moo ma indi ci lool laay deme commentaire yi lan moo leen fi indi ñoom Aziz Dabala moo leen fi indi tamit. kon ñoom pour que ñoom ñu wax la dara yow nga daw. loolu mënul nekk. non dawuma de man dañ ma bloqué quoi. dañ laa bloqué kon am na leneen loo def te euh, léegi benn affaire la mooy dañ doon werante ma bëti. defuma dara de lépp si waxtaan la rek comme ni ñuy waxtaanee man ak yow ñuy werante xamale ma la bëti am lu mu def. mu bloqué ma mhm. moom la neex mu bloqué ko quoi mais ambassadeur moom xam naa ne man du ma bloqué parce que moom sib na man maay kan quoi. du betti de man man man man man jàpp quoi parce que non déglu ma ma man loolu laa jàpp parce que man ak moom. noo doon wax waaw foofu. non rek xaaral rek. non loolu explication la pour ki comprendre woon doomu ambassadeur man man muy expliqué xaw ma ko. xaw ma lu muy expliqué te comprendre ma doomu kii. doomu doomu benn nit laa buy buy xeexal Aziz Dabala ñu bañ a nekk ci débat man benn gaan laa bu nekk xaritu Aziz Dabala bokk ak la ñuy xeex. ngeen baal ma de est-ce que duñ ko may rek mu wax ñu bàyyi ko ak Mina. doo que man boo leen parce que man mënu ma baal leen ma rek ngeen tëj micro ngeen di yéen ñëpp waaw ak Mimi. ferme leen micro yi rek ngeen bàyyi. xaw ma ko man xam naa ko mais amul problème waxtaan leen rek waxtaan leen rek. <laughs> parce que fii famille la c'est la famille. ok yow yow yow yow yaa tudd Robin yow. non non non man. non non Assane laa tudd Assane. Hmm. mais dañ dañu dañu sama compte xëy na yow bu ma fiy dugg tombé woo nekk fi quoi mais ñeneen ñi xam nañ ma mais loolu amul sens quoi. Assane yow yaa ngi wax géejo waaye amen kii Pikine ak. ginaaraay bokkul non non non non non non du man. waroo ko laaj ambassadeur day mel ni espion nga may leen noo hmm. si débat bi fu mu tolloon moo tax ma laajoon loolu quoi léegi après loolu noonu dépa passé nañ ko quoi ñu nekk si leneen mais maag béti daa am lu ñu doon si loolu dañ si doon werante après nag mu mujjee ma bloqué moom xam naa dafa meroon si li ma ko doon tontu wala du genre affaire yooyu ma loolu laa jàpp ma toog deux semaines duguma si live bi mënuma connecté wu parce que dama liggéey woon sama kóolu soxna mënuma ko gis fu ma nekkoon ak fu mu nekk bokkul ma ñëwaat sama gaale si benn weekend woo ambassadeur si panel bi nii ne ko ambassadeur man dañ ma dañ ma bloqué te dama bëgg ñu débloqué ma. si numéro nga ko woowee nii non non si panel bi fii nii comme ni ma duggee. Mm, mm, ok ok. ma ne ko ambassadeur sama compte bi dañ ko bloqué dama bëgg nga débloqué ma xaw ma nag kan la mais ba léegi gisuma ñu débloqué ko dama mujjee obligé ubbi beneen compte pour mën a déglu live bi quoi ok ba tuuma lii nii nii c' est pas grave de c' est pas grave. dara ci sama yaakaar de parce que xaw ma nag mais man man anyway ma fii ñun ñëpp a ko bokk. donc l' essentiel non ni nga ko xalaatee nii noonu la demee amul benn problème. ah xëy na dañoo comprendre quoi ban jëmm mooy wax ak ñoom. waaye jëmm boobu nag nga fexe da nga lay fexe xamal leen ni man maay diw mais bañ a jaar sama tur. Eh, man lii moo ma yëkkati liggéey bii moo ma yëkkati dama ci jàpp. waaw léegi nag man dama ñëw nag wane sama bopp wane sama jëmm wane sama photo wane sa déglu ma rek déglu ma wane sama bopp wane man maay kan ñoom xam lañ ma mujjee wax laaxatul man leen man kan laay laaxatu si àdduna te ma nekk di xeex booy xeex di laaxatu kon foo jëm yow booy xeexee da ngay wane sa bopp bu nekkee kooku yow gëm nga li ngay def yow am na fooy toll kom man sama genre man nekkuma comme ñoom dañuy def quoi comme ne du ñu wane seen bopp after nii mun nañ leen xam créer leen man nekkuma si yooyu. Mhm. man Aziz dama ko dund ak moom ba muy neex ak ba muy naxari. ndeysaan. mais man foofu laa ñëwee quoi mais après li ma doon xama rek wenante am. garaaw mooy loolu ku nekk gis sa bopp concentré waat ci ci liggéey bi dee dégg nga. panel bi panel bi welcome anytime boo bëggee yéeg nga yéeg dégg nga. fii fii sa palaas la ñun ñëpp a fi xaj fii ñun ñëpp a ko moom comprendre. gis nga nit mun na yéeg wax ci l'essentiel yow mënoon nga fi yéeg ba wax l'essentiel nga bañ a tontu nit lu la wax est-ce que comprendre ay madame Sagna monsieur loolu waroo mënoon nga ko non wax l'essentiel dañ ne ma yow la kan biñ ma laajee yow la kan non non non non man laajuma la ko de man du ma yéeg bay laaj la laajuma la loolu man dama ne bi nga yéegee. daa am bind madame Sagna naar lay wax nag yow tamit déglu ma dama bëgg ma ni la boo yéegee waxal ci mm. l'essentiel bi nga wàcce wala nga continuer sa débat bul ko bul tontu nit mu la wax yow la kan jarul tontu loolu waxal ci l'essentiel bi bo waxe l'essentiel mom bopam bi posé woon question dina la tontu dina la poser benen question ci l'essentiel bi ngay wax ok wa léegi c'est ça comme que man li la don bagn quoi ñu bagn xama wérante bi est-ce que yaa comprendre léegi nañ djublu nañ da bëggone yeen comme li ngeen doon débat moy lima leen njëkkoon wax rek man looloo mhm. taxoon sax ma dugg fi parce que dama mhm. gis ñu concentré aussi booy ayda boobu noonu te booy ayda boobu maanaam gars yi des fois dañuy wax benn affaire baay cabaxal benn wax pour yéen xam nga ngeen mhm. concentré aussi si te doo leen si bàyyi xel man foofu laa duggee doon wax quoi. t'inquiète don't worry. ok merci beaucoup am incha allah dégg nga dégg nga Assane. noonu la demee si. amul problème ñoo ñoo ñoo far heure boo buggee yéeg nga yéeg wax sa kii commentaire moom. am na ah, commentaire yi gars yi bàyyi na ko de waaye sama bokk bee mu ngi insister dama lijjanti ak moom la Mauritanienne dérangé wuñ ma quoi mais xam rek des fois da nga gis ñoo xam ne xam ay naar bi <laughs> xam naa ne xam xam naa ko bu baax naar bi xam naa ko bu baax moom xaw ma rek ma xamul xaw ma mais xam naa ko bu baax eh doy na doy na vraiment c'est ça salaamaaleykum maaleykum salaam mi mi demal waa na def mu ngi lay nuyu bu baax maa maa ngi doog a dugg si groupe bi parce que si panel bi parce que daf ma intéressé depuis deewu Aziz ba léegi dama am lu ma metti ak waali bi yàlla xam na ko du ma nalaw guddi damay xoole gis nga tiktok bii nii sax aw ma ko sama tiktok rek laa jël moom moo ma wan fu may dugg lu may def ba mu fi duggee yàggul maintenant fekk yenn sénégalais xam lu xew di jàppale Nabou ak di dëggal ne Nabou dafa nekk si yoon loolu man moo ma metti mhm. di wax ne Nabou Leye deful dara te yow ñu génn di jàpp ko ñoom Ahmed Aïdara ñoom Fall Ndiaga génnee lépp wax ko teg ko ci table bi ba ñëpp xam ne ne Nabou Leye mi ci la laale daf cee taqe nit ñi commencé di wax ne yoon moo ko taqal yoon moo ko génnee yoon moo ko dugal yoon moo ko génnee pour lan loolu man pour lan nit ñi di nen yoon moo ko dugal yoon moo ko génnee man loolu mooy sama problème gis nga maam Waalo mi wax nii maam Waalo mu njëkk taqal nabu nabu lay ndax moo fekkee woon lépp mu ko njëkk taqal hmm. man maam Waalo dama yaakaar ne dafa am lu mu ragal wala dafa am dafay mbubboo gaynde gaynde géejuwaay bi gaynde géejuwaay bi mais am na lu mu ragal lu nekk ci suuf ndax maam Waalo moo gën a xam ne nabu lay ci mbir bi la bokk maam wala booy xool war na la boppam bu yàgg quoi même maa ngi jégalu rek. nan la waxee boppam. maam wàll moo gën moom mu ngi lay expliquer ne la man fan laa paree si Nabou Leye fan la génne si Nabou lay xam ne kii nii setutu si mooy bu bu bu muy def réaction am bu mu koy laaj bu mu koy laaj xaw ma am na fu muy waxee ne euh, Aziz xaw ma lan mooy. xaw ma lan mooy dee xaw ma genre. déedéet man dama comprendre lu tax euh, tantay Nabou Leye wax dëgg bi nit ñi di dal ci kawam tantay Nabou Leye euh, asafula tantay li mu wax dëgg la Nabou Leye da cee laale complice la si mbir bi pour la ñëpp di génn si télé yi di wax lu mu wax tegu ko fenn lu mu wax tegu ko fenn te ñoom ñu gisoon ñu tegal leen lépp si. si table bi soo gisee ñu ne lu mu wax tegu ko fenn daa am loo xam ne rôle justice la quoi en fait si lu ma mën a gis man. xam man mun naa taxaw loolu justice ñëpp xam nañu loolu justice la mais justice na génn wax nit ñi lan moo xew ñoom ñoom mhm. Aziz lu ñuy xeex dafa nekk yoon. fii kuñ fi reyal sa mbokk di nga bëgg xam kan la surtout nag ñu tegal la ay nit kagule leen wane ne ñëpp ne ñoom la ba pare bàyyi fi kenn bàyyi si kenn te waxuñu kenn dëgg bi waxuñu lu tax ñu bàyyi ko teguñu ko si yoon non li nga wax nii mooy raay mais dama la bëgg a xamal ni yow fi ngay waxee nii nii nii nii nii ak instant bi nga toogee nii yow dëgg bi moo la fi tax a toog man dëgg bi moom fi tax a toog ak ñëpp ñu ne ak 693 personnes yi ñu ñëpp dëgg bi lañuy ñuy xaar quoi en fait est ay dégg. mais nag du tax nag ñi bañ a tere nit ñi wax seen xalaat parce que dañoo gis lu leer naññ moo tax nit ñi di wax. ku waxul dëgg wax seen xalaat ngay demee quoi man sa si lu ma jàpp quoi. fii ñëpp dégg nañu lu xew ñëpp gis nañu mm. ba ñuy jàpp nabu Leye Nabou Leye bu fekkoon ne ku set wicc la kenn du ko boole si mbir yi ndax mooy meilleur ami Aziz moom moo waroon toog di di jël jaal jaal yi moom moo mm. waroon taxawu waa kër Aziz dëgg rek a neex na maam waalo nag sànq loolu la doon expliqué moo tax mu ne moom foofu la commencé ragal. maam waalo ay waxam. daf koy lim laami gis nga nit boo seeseeree. da ngay wax da ngay jaar ci digg bi. moom mu ngi jàpp ne bu waxee dinañ ko fekk fu mu toog ne ko coppet jël si ko man si li jàpp ko waaw kon vaut mieux vaut mieux mu noppi. bu bu di wax di xasaale waa kër Aziz tegu ko fenn. waa kër Aziz lu ñuy xeex dañ ci am droit seen droit la. bu leen ko wax noppi gis ngeen ñaari gis ngeen débat lii la ñoom ñaar ñu ngi débat man nii laa bëgg. parce que parfois benn nit buy wax bu yàggee. day annoying day day day soof gis nga ñoom ñaar ñu ñuy waxtaanee nii day am import day intéressant man moo tax parfois bu ma gisee ñaari nit keneen dugg ci di waxtaan ndànk dama leen di bàyyi bàyyi leen ñoom ñaar ñu waxtaan méttiwul ñoom ñaar ñu ngi déggantee ndànk ndax di waxtaan mais ñu panel bi tàmmatuñu lool dañ tàmm kenn di wax kenn di wax wax wax wax wax wax wax day jàgg comprendre léegi keneen parfois day bëgg cabaxal foofu wax ji pour waxtaan bi neex non bàyyi leen ñu wax. li ma li ma li ma mënti wax may may ma tuuti grand li ma mënti wax moom mooy. Mhm. xaw ma waa euh, ci danseurs yi ñu ngi may dégg xaw ma musiciens yu Aziz nekkaloon mais ñooñu ñu bon lañu. kuy seet mm. ku bon jàppal nit ñu Aziz doon àndal man mënuma concevoir nga ne yow nit ki sa papa la ñun ñoom ñëpp di ko woowee papa Aziz nekk ci problème ñi rey ko rey bu ñaaw bii boo xam ne ne ñun ñi xamuñu ko man Aziz musuma bëgg seetaan ay feccam mais Aziz bañ ko reyee jour bañ ko reyee mardi boobu duma ko mës a fàtte damaa jooy jooy mel ni sama rakk bu góor la ñu rey sama xol bi jeex tàq depuis boobu ba léegi mënuma nalaw munuma xoole bu may nekk sama waañ sax maa ngi takk samay écouteur di déglu euh, youtube laa ko doon dégloo seen lii sama raq boo ma ne live bi da ngay dugg tiktok pour mën a wax tellement dama bëggoon wax lu nekk sama biir xol gi fekk man ana ñoom paama jeeb ana ana paama jeeb paama jeeb ah nu ma meloon Aziz ana ñoom euh, Momo Dieng ana fecc woykat yi euh, Aziz doon àndal man yooyu moo ma metti mënuñu taxaw ñëw dëggal seen bopp wan ne ne li ñu def Aziz daf leen metti man yu man li ma naqari si mbirum deewu Aziz bi am ak fikk bu nit ñi di def ba euh, di def nu ma méttee man yàlla rek a xam. sénégalais yi war nañu xoolaat seen bopp ñun sénégalais war nañu xoolaat suñu bopp parce que lii ñun ñoo waroon jug xeex ko léegi yoon wax ñu lan moo xew yoon dafa war a wax nit ñi lan moo xew fii amul leen luñ fi lim laame war nañu wax nit ñi kanax kan moo rey lu tax ñi rey ko ñam ñoo ko gën a xam fi amul lenn luñ lu leen ump dig dafa leeral lépp lépp boobu balaa mu leen balaa mu siy jóge non affaire moom am na lu si luus quoi parce que fii am na crime bu nekk am na fi te réquisition des faits day am mais maa ngi soo gis crime bu demee nii quoi amagul réquisition des faits. looloo waral nag mu mu nekk loo xam ne dafa moo xam ne moo lii moo waral ne ñoom ñu si dëgg. moo tax waa kër Aziz di jooy nit ñi topp ku nekk lu tax ngeen di wax lu tax ngeen di waa kër Aziz dañoo war a wax. li ñuy def seen droit la. waaw léegi ñoom seen wax bi force la ko parce que kenn terewu leen ko parce que ñu ngi koy def mais xam nga lan la ñu war a lijjanti affaire bi fan la toll maanaam avocat bi si boppam moo war a wax nit ñi fan la affaire bi toll quoi parce que xam nga ñun mënuñu dem ba si. avocat bi lu mu wax c'est clair et net nee na moom xamu gu si dara. waaye yow avocat bu doy na lu doy na dara ça veut dire que ne lu luus lu ñoom luñ koy nëbb léegi nag uy ma gis nga avocat bu ne lay xam xaw ma si dara te yow nga ne avocat non kon léegi kooku loo leen koy doyee nañ wax dëgg dëgg tamit nga ne avocat la yow laa jël pour nga setal ma nga ne xamoo si dara avocat bi bu fekkee dafa nekk dafa fekk am doole ñu koy xeex lu muy def lu dul daw seen gin daw di di di di di di def ay demande bañu bañu ba ñu leeral affaire bi jox ay ay dossier sa waa famille Aziz Dabala ñoo ñoo desee xam lu bëri rek mais am na ñu mu doon doon si man sama li ma jàpp quoi am na ñu mu doon doon billaahi affaire bi du duré comme nii man sama sama gis-gis quoi. affaire bi am na ñu mu doon doon du diire parce que affaire bi ñu ko laale moo moo doy waar ñi si teg seen tànk moo doy waar mais fii rey nañ fi ay nit une semaine ñi def. Euh, nu mu tuddati reconstitution de faits ñëpp xam lu xew. lu tax ñoom ñi jàpp nit te mënuñu def dara. c'est parce que ne ñoom ñoo bëgg a sonal nit ñi waa kër na ñu yuuxu ba ñu jox ba ñu wax leen lu leer naa ñe man de yàlla xam ne ne su ma nekkoon Sénégal boobu seen conférence de presse ak seen marche kenn du ma fa jiitu ndax li ñuy def Aziz metti na ñaaw na waaw léegi nan la ñuy jàppee nit man xam nga man justice xaw ma la sul boy damay laajte quoi nan lañuy ñuy jàppee nit ah ñu am fuñ ko rey maanaam foofu kenn ubbeegu ko kenn jëleegul bagage yi yow nga génnee ñi nga jàpp quoi loolu mooy wax mënul comprendre man loolu mooy wax mi moo tax ma ne la yëfu naa fekk la la la nit ñi di wax de justice ñi yor affaire bi dañoo def lu leen neex yoon dafay def lu ko neex Nabou Leye kenn waru Nabou Leye du gor sax nabu Leye bu doon gor buñ ko génnee day ne génnuma hmm. damay toog ba ngeen setal ma ndax ni ma menax Aziz kenn duma bàyyi lii may dox si mbedd Nabou Leye fi mu toll nii moom pare quoi sama gis-gis. dama doon xool ndax maam seen ñii moom la wal moom dina maam maam joxuma maam parole de dama doon xool ndax moom la rek après ma bàyyi la ngeen continuer. dégg ngeen ma ne ma ne ma ne laa gën a mere man Kumba Gawla nu mu mën a waxee damay jëlal Aziz avocat te ba tey ñaangu si ñebu ci man loolu moo ma metti gis nga ak Aziz ñoom ñëpp dina leen daal yàlla xam na ko ku ma gaaw la gis nga keroog soirée bi amul benn nit te pourtant ni ni ni ni ni ni nga foog sa gan la té fekk ni xam nga du sa xarit quoi en fait manam li rek dalay won exemple ki muy xaritam ko ko japp ba ni mais ñi ci dess ñepp manam andando rek la la xam nga man la japp ni non mom la len ñom mom lañ jappé won Aziz quoi en fait ils ont try ok manam dañ try Aziz quoi parce que Aziz tamit amna lu mu daan junj nit ñi non yàlla dafa dafa garaaw nag Aziz ah, daan na wax ay wax yoo xam ne gars yi xam naa dañu si bàyyi xel quoi <laughs> te ndeysaan waxoon na lépp. ndeysaan aussi dañ comprendre fi may waxee yéen. dëgg la billaay dëgg la maanaam Aziz. léegi Kanzo yow doo Kanzo nga wàcc toogal fi dégg nga. non Sega du wàcc man nekkuma ah, may ma rek yow yow nag xam nga yow nag neexaw bëgguma nga wàcc parce que dafa am loo ma lu li ma sentir nii dafa am loo lu ma bëgg ñu waxtaane ko waaw may ma ah, wax waaw dama lay may mais keroog. maanaam ay waay bàyyil waxu keroog. <laughs> waaw man man maay wax ak yow nii. dama bëgg dafa am fu ma bëgg ñu waxtaanee ko dégg nga. man ak yow ak maam mi yéeg léegi maam dama mm. dama koy may parole mu wax après comme ça ñoom bu doon dafa am question ñu posé ko wala moom bu doon dafa am question bu ñu bëgg posé tamit bu posé ñu. maam maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waa kañ maa ngi di ziar di remercier sénégalais parce que li euh, dafa baax am solidarité ci meurtre bu day parce que Sénégal d'habitude bo amé meurtre dañuy tok ñu sénégalais gaaw na faté, après ñu passer à autre chose man nak Aziz deug deug bi mu gaño la ko doogay xam parce que duma suivre bu baax yi mais foko naa tay buñ fi tolloo ñu ray ben rey ben artiste artiste yi si ñoom ñoo waroon def comité nekk ci ginaawam xeex ba mu leer pourquoi milieu artiste la li dal Aziz mun na dal keneen ak keneen ci seen biir milieu de un de euh, gisoon naa ñu wone aussi caméra vidéo surveillance ay nit yu yore paaka donc man pour man ñooñu ma gis noonu war nañu mën a gis seen kanam euh, enquête bi waruloon yexi fi mu yexi ni nii waroon nañ mën mm-hmm. nit yi le plus rapidement possible lutax tax mu yéex euh, ñom ñoo xam mais bakkanu nit foor na fooraay boo xamante nit ki ray reykatu nit nit ki nek lu mu munti nekk ci aduna mom la engagé mais le droit humain le droit de vivre tout le monde là nit ki buñ ko otewee sa vie il faut que ñepp jóg ñepp xeex ko pour mu leer tay bu dee nabu lay def ci laale parce que deug la bakken dafa fort balaa ngay jigné mom la dang kay xolé sa bop bu yow ñu jiñ la ko ñu jiñ la ko du neex mais bu daf ci laale aussi man je pense que man sama xalaat bu gàtt même buñ ko génnewee police teg ko fii teg ko ci biti na sa se jamais libre dans sa tête ci boppam du ma sa libre ñay toog di ko défendre aussi moom bu ko wéet xam na boppam te fii ak yoomal xiyaam moom da koy fay njabootam da koy fay c'est-à-dire mu dugg kaso ba ñu dugg kaso bakkenu nit moo foor ba nga xamante ne boo ko xasee ba génnee ba génnee bakkenu nit wala nga laale ci da lay topp toppaat la say sët say sëtaat say sëtaat mooy lu ko nit mënti masla masla masla moom karmaam da koy dund par la force loolu ñu kenn mënu ci dara ni mës a rey yëpp yëpp yëpp yàlla sax moo leen yàkkamte wuloo fet rey nit bakkenu boo ko génnewee yàlla du la yàkkamte

à plus forte raison sénégalais parce que ray bi ñaaw na bo xamantene fo ko nat ci aduna ëpp nako ben doomu pikin géejawaay ñom dañu wara juk parce que lu ñaaw lu ne ñu tek ko pikin tek ko c'est les gens les plus abandonnés au Sénégal ñom ñoo nek ci condition yu gëna metti tay bu ñu né mbeur ñu ne sene ñu ne géejuwaay bu ñu nee nervi ñu ne géejuwaay pikin bu ñu nee fecc ñu ne way pikin lu gëna lu gëna metti ñom ñokoy ñoo ñom ñoy pené ñooy benn par benn bo xolé taux de réussite bo démé ci banlieue bi c'est plus minime dafa melni des gens abandonnés à eux-mêmes bu dee fecc dañ leen di exploiter exploiter leen hein ba sen yax yi yaqku ñu dem jëli ji benen xalé

fii nag fa lañu war a jógee ñu am solidarité man c'est vrai que je n'ai pas grand màggew ma ci banlieue bi mais sama maam banlieue la dëkk am naa ay cousines yi fa dëkk am naa ay cousins yi fa dëkk da ngeen war a am solidarité am loo leen di bañ ah àndandoo dóorandoo fàccandoo pour que yéen seen doom yi lii dal Aziz bañati leen dal yaayu quelques mois am na benn xale bu am 12 ans bu ñu violé ci biir banlieue bi man maa nekk la seule personne toog ci réseaux sociaux yi di ko xeex amul benn doomu benn doomu pikin bu jóg ne man violé nañu benn xale pikin nañ jóg xeex déedéet li leen daal rek ku ci nekk day xeex ci rukkam tout seul comme si vous êtes alors que yéen yenn banlieue bi moo ëpp nit boo demee ci yenn yenn ville tey boo rombee pikin géejawaay guddi si xale yi mbedd yi nu muy feesee dell ne lu tax quand vous êtes malheureux vous tout seul te yéen waroo leen wéet ni ngeen tey waroo leen wéet ci seen xeex tey Pikine yëpp bu ñu jógoon Guédiawaye yëpp jóg histoire u Aziz bi par la force dañ ko mettre dans les points dans les i mu leer nañu ñaray ñu ne leen ràpp leen ci kaso bu dee nit moo ko commandité nekk ca kaw tamit ah enquête bi mën a accélérer kooku ko commandité tamit ñu ñëw jàpp ko ne ko ràpp ko ci kaso bi ndax bakken moo ñaari bakken ñoo génnandoo ci anam bu ñaaw kon lii ah waru leen sax toog ci panel bi di ree di wax wax bu ñaaw parce que lii nii dafa métti métti foo ko natt weesu na ko te jigéen bu nekk na ko xoolee buñ ko defoon doomam wala ñu def ko mbokkam panel bu mel nii man c'est la première fois may dugg toog na deux trois minutes di leen déglu waroo leen may nit di fi dugg di saaga par respect aux aux aux âmes qui sont ñii génn ci àdduna par respect reetaan waroo leen ko def parce que lii c'est